président Macky Sall bu bëggee génnee détenu politique yi mën na def lu ñuy woowee abandon des charges dama bëgg nga wax bi euh, askanu Sénégal ne président Macky Sall moom miy tëj injustement arbitrairement kii di président Ousmane Sonko bu ko bëggee génnee mën na def abandon des charges madame la ministre dama bëgg nga wax askan wi ne président Macky Sall. moom mii nga xam ne dafa xañ arbitrairement injustement Ousmane Sonko ses droit d'être candidat te du dëgg du yoon président Macky Sall mën na def lu ñuy woowee modification de l'article L57 du code électoral te ma déposé woon fii proposition de loi boo xam ne depuis 7 mars 2023 kenn xoolu ko kenn et personne ne s'en est offusqué personne ou presque ne s'en est offusqué madame la ministre loolu nga war a wax président Macky Sall loolu nga war a wax askanu Sénégal ne kon waaw mën nañ génn mais du amnistie rek moo am pour mu génn léegi nag dama bëgg madame la ministre nga wax askan wi ne lii tax président Macky Sall jaarul ci abandon de charge ak modification article L57 du code électoral mu jaar ci amnistie c'est parce que moom mooy le parrain des tortionnaires moom mooy le parent des assassins moom mooy le parent de ñi nga xam ne ñoo faat boom nit yi moom doomam sax ñu ngi koy tudd ci recruter ay nervi en réalité loi bi du pour Ousmane Sonko du pour Pastef du pour askan wi du pour détenu politique yi en réalité c'est pour le président Macky Sall ay mbokkam ay xaritam ak góor ak jigéen